seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé tàmbali yër yéene kay yi ak crise universitaire bi Vox Populi xamal nu ne ci université Cheikh Anta Diop ñoom jël nañ dogal étudiants yi ne dañuy suspendre seen grève waaye nag ci pëccëxoo gu réeréy la mujjee ndax yenn ci étudiants yi d'accorduñ ci loolu ci université Gaston Berger ñoom nee nañ ba tëj yi ñi ngi sàkku justice pour fàllu seen di seen naataango bi ñu boom ci yëngu-yëngu yu amoon ci université Gaston Berger te nag nee na laata ñu yëkkati seen mot d'ordre de grève fala budde faaw ñu dàq ministre yi nga xam ne laale nañ ci mbir mi Bambey naka noonu ñoom nee nañ du ñu dakkal benn yoon seen mouvement de grève loolu la ñu yéene kaay bi Le Quotidien xamal njabootu fallu seen ñoom déposé nañ plainte contre X yéene kaay bi di laas moo ñu ko yëgal ngir ñu leeral mbiru faat gi nu faat Fallou Sène nguur gi de pourtant neexal étudiants yi bi di Vox xamal ñu ne tàmbali nañ fay bourse yi ci weeru mai gi waaye ca booba amoon na ay école ay établissement enseignement supérieur yoo xam ne dañ fa orienté woon ay bachelier yu bëree bëri ñooñu ba tey jii laalu ñu Pikini nguur gi mi ngi leen yoral quatorze virgule cinq milliards de français CFA yéen kaay bi di laas ma ñu ko xamal ñoom nag ñu ngi réclamer li nga xam ne moom leen nguur gi yoreel. waaye li nga xam ne lu xóor bu réere la jëm ci financement autoroute à péage yéen kaay bi di laas ne collectif des usagers ñoom nañu nañ nag ngir ñu leeral mbir moomu contrat yi ñu wax sénégalais yi naka la demee leneen na ngi nii nekk lu xóor gu réere yi ci biir Air Sénégal yéen a Le Quotidien baaxee ñu ko waa ji ko def kan la directeur Air Sénégal di bon deful benn bon de décollage yéen bi Le Quotidien ne moom lu xóor yu réeréy la fa def ndax compagnie bi tàmbaleegul sax di liggéey ñu fas yéene nag leba leba leba leba leb ngir jënd ay avion te nag. ca booba FONSIS ak ministère des finances waxoon na leen yoon bu ñu war a jaar ngir fi mu nekk nii gafak réew mi ñu mën ko sakkanal ñu ne déedéet duñ fa jaar ne dañuy jënd ñaari avion si trois cent milliards de francais CFA loolu la bon def Macky di ko bàyyi muy def lu ko neex waaye yéenekaay bi Les Échos baaxee ñu xibaar bi ñu démb am na ñu tiitoon lool ña jëloon avion Air France bi den ñibbi si fii ci ndakaaru ca Maroc la ñu toll ñoom ay jafe-jafe ci wàllu avion bi ba ñu dëpp delluwaat ca Paris ab Mbow Cheikh Omar Anne Thierno Ndom ba Papis Demba Cissé ñoom ñëpp ñu ngi woon ci avion bi tiitoon nañu lool foog na nag. làmbaay dina ñaaw beneen nouvelle a ngi nii moom du neex kenn koo xam ne da nga nam ma tabax ndax nag ciment bi yokk na yéen a les éco moo ñu ko yëgal Dangote ciment du Sahel soo ko sim yokku nañ mille francs ci tonne bu ne commerçant yi fas yéene yokk consommateurs yi ñoom sa ngéem jooy législative 30 juillet 2017 observateur yu union africaine ñoom jox ñoon dëgg opposition bi dañ wax ne pëcc xoola dara baaxu ci donte langaay diplomatique la ñu utiliser Dakar Time nee na seen rapport boobu lu luñ ci wax nee na dialogue bu dëggu bam ci diggante mag Sall ak opposition gis ko benn yoon yéex yéex seetlu nañ ko ci defar carte yi ak distribution carte yi rax dool li ñu changé code électoral bi laata ñuy dugg ci démarrage campagne électorale ndekete yoo CEDEAO daf leen ko aaye woon nee na quatre-vingt-dix pour cent bureau yi tàmbalewuñ ci heure bi nga xam ne moom lañ bind ci code électoral bi quarante-cinq pour cent ci bureau yi lu mu bon bon quarante minutes de retard am nañ ko dix pour cent nag am nañ lu toll ci benn waxtu ci retard mission boobu ne. tamit ca Touba yàq nañ fay bureau de vote Ismaïla Madior Fall du def lu gën a yées ci biir yéenekaay bi di enquête nee na moom day kontaan lool bu ñu ko dàkkantalee tailleur constitutionnel PDS fi mu nekk nii feete nañ démb 92 ans yu Ablaye Wade waaye nag yéenekaay bi l'Observateur nee na lu ñu yekkul Macky Sall dañ koo fàtte te nañ dogu nañ ne dañuy xeex bu baax a baax a baax ngir moomee lu met Ablaye Wade kenn du ci jël pikini te nag dogu nañ ci loolu la ñu wax waaye met xam laay wat ci boppam tas na tasar APR ci naka Vox Populi moo ñu ko yëgal Alioune Badara Cissé fental na ko poème bu rafet lool jagleel ko ko ne ko ni ma la wegee ni ma la respecté gisuma ku ma ko wegee ku ma ko respecté maître waar mere lool Seydou Guèye ci coow li nga xam ne génne na ko ci communiqué di yakk xame met xam laay wat kii di maître euh, waar na ko Seydou Gueye yiwul tegginiwul nga yëkkati kàddu yi ni mel di ko jëmale ci kii nga xam ne moo di maître Abdoulaye Wade rawatina bu ñu nekkee ci weeru koor PDS déclaré guerre Macky Sall ci biir yeneen cabinet de ko Babacar Gueye na ñoom noppi nañ ne indi char de combat yi bulldozer yi ak huissier yi ñoom dañuy jaayanteeg ñoom seen bakkan ngir moomeelu Abdoulaye Wade kenn du ko laal nee na kër gi jël ko yiwul tegg tegginewul politiquement sax dafa jékkul Doudou wàdd na këru met Ablaye Wade gi nekk ci poye nga xam ne histoire politique bu baree bari Sénégal mën nañ ko sooy bind waaye waaye rafetul sax ñuy wax ne dañ koy jël waajalu gaynde yi pour coupe du monde Sadio Mané ju bokk ci am match amical contre Luxembourg l'observateur moom ñu ko yëgal Saër Seck ne ne ci wàccaay yi nag benn joueur nekkul di woor jër ngeen jëf ci dëgg bi leen rajo soo